logistique en grand danger oui en très grand danger parce que si on nee convoi hors gabarit moi convoi boo Les gens, li mu yàpp xajul sax ci une voie mais même les déborder ci beneen day déborder ci trottoir bi déborder ci voie donc ça prend toute la largeur de la chaussée donc le convoi hors gabarit Il y a un convoi hors gabarit mais à moindre gabarit mm-hmm. les conteneurs yi feront faral di danger bi ak conteneur yi lan souvent du am verrouillage mhm. souvent conteneur yi au niveau des virages nga gis ni ñuy tàngee té pas plusieurs plus d'une fois gis ngeen ay conteneur yu yu daanu mhm. peut-être amuguñu conteneur bu daanu ci kaw nit motax waxaguñ ci ah, mais c'est des choses qui peuvent arriver tout le temps parce que buñu né convoi hors gabarit dafa am réglementation bo xamante mom moom wara am parce que convoi yooyu dafa am ben plan logistique buñu wara suivre plan logistique bi moom mooy tracé yoon bi mu war a jaar xam na gabarit convoi bi xam na largeur bi xam na longueur bi xam na ñaata passerelle la war a traversé xam na hauteur passerelle bi est-ce que dina mën a jaar ci suuf passerelle bi mooy ne que tey jii. 4,5 mètres bu ñu waree génne benn turbine par exemple port. Mm. war koo yóbbu ba jam ñaajo yoon bi mu war a jaar yëpp un logisticien war na faa jaar. Mm. xool différents obstacles yi nekk ci yoon bi li war a dégager mu notifier ko li ñu war a euh, li ñu war a modifier mu notifier ko li ñu war a contourner mu notifier ko. Mhm. mais souvent yooyu noonu du am. bu ngeen amee rappel bu ndaw Youssou Ndour mosoon na fi commandé benn appareil bu doon jar ay milliards ñu waroon ko yóbbu jam ñaajo ba mu daanu ci yoon bi. on s'était interrogé sur comment appareil bu jar ay milliards yu plan logistique mais aussi amul escorte policière. Hmm. fait comme Abdoulaye Saré PCCI hmm. nga en 2007 2008 li def Pékin, et dem Pikine. Hmm. day Mohamed kooku mu ngi mu ngi ko ne ko Pékin, euh, nga demal Pikine ou pas. mais loolu mooy plan logistique woo a def nii côté bii a mun a. mais loolu hmm. jàng transport logistique. mais yooyu lañ leen di jàngal naka ngay gérer yoonu convoi président de la République balaa muy génn bu fekkente ne jas la jëm mais buntu pale ba ba jas am na ñu fa jaar. waaw ñoo xamante ne lu ñu romb noté nañ ko. ba pare moo taxaw lu ñu romb mu war a nekk incident noté nañ ko. yooyu yëpp dañ koy consigner si benn document def ko benn rapport balaa convoi bi di génn lépp lu am ci convoi bi loo xam ne bokk ci woon yow ma laaj ne la yow lii sa zone la lan mooy sa liggéey lan mooy sa war lan nga def loo waroon def loo deful ba tax lii am mm-hmm. léegi entreprise yi ñi ngi koy def ñi ngi convoyer du matériel lourd te amul plan de logistique mu nekk un danger boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ cee lor. Mm. parce que nga teg conteneur amul verrouillage souvent conducteur yi koy dawal amuñu formation quoi qu'on puisse dire xamuñu les lois de l'inertie xamuñu les forces centrifuges nga yor une masse ñëw au niveau des virages convoi bi génn bu fa fekkee ay nit daf leen rey am na mm conteneur ba daanu ci kaw cette place ñu ne il faut ñu ñëw ba fii port pour jël benn grue pour mën a tegg conteneur bi. grue bi daw eh. grue bi daw trente kilomètres heure Dakar Mbour 80 km kilomètres balaa muy ñëw fekk na ñu nekkoon sa place ñu dee nañ. sapeur yi mënuñu lu dul ñëw toog di constater parce que conteneur mënuloo ko buux mënuloo ko def dara loolu noonu bu ñu amoon un logisticien mu xam ne lii conteneur bi vérifié wuñu ko bu subiree force centrifuge dafay génn bu jaaree ci yenn virage dafay génn. kooku bu génne woon noonu teg comme ay résolution dinañ wut ay solution ba loolu am loolu noonu moom moo amul pour loolu am nag il faut ñu nangu jël booy yi nga xam ne jàng nañ gis nañ gis la matière li ñu war liggéey rek moo fi am hmm. mais malheureusement kenn jëluñu parce que entreprise yi di convoi yëpp léegi Sénégal pays bu nekk en chantier UCS bu jëlee nguur gi xanaa loolu moom. dina ko soppi ah mais ah? non xanaa du toogee ak madame madame Gakou fii nii tey tey du indi solution. ci loolu hmm? ah war na cee mën a indi solution ah? ne Sénégal dëkk bu nekk en chantier la. d'accord may ko ngi tabax. ñi ngi créer de nouvelles villes kon forcément des convois hors gabarit il y en tout le temps.

loolu laa indi woon tey di ci waxtaan ak yéen. merci beaucoup jëm jëm. chéri loo ngi nii ah soxna loo. ah yaasa bu baax. ah dem nga ca yaasa ba. ay waay loo. est-ce que duñ damaa.